mbokk yi ñu suivre ci gis ngeen ko yéen a gis image yooyu ngeen gis Serigne Ndiaye numéro 2 moo bëree démb ak Libidor bu Kayar yàlla may ko ndam ñu koy félicité moom Serigne Ndiaye di encourage ki nga xam ne mooy Libidor di ko xamal ne ko làmb noonu la tey nag ñu ngi Saakura Badiane fii waa Fass fi la ñuy entraîné Serigne la fa préparé kombaam comme daa daan ah ñu seet si ko gis ngeen ko sànq léegi mu ngi ne la taxawaat ba tey yàgg maar di wuyu téléphone bu la neexee ñu yegg ba ci moom coach bii moo ko yóbbu woon démb soose maa ngi lay bégee maa ngi lay ziar Babacar. ci loo ne. félicitation. am ngeen ndam lu leer nañ. waaw démb am na ndam lu leer waaw. ci lu gàtt loo mën a jàngate ci combat démb bi en tant que technicien ku andi woon sa mbër muy Serigne Ndiaye. bon mooy que mais pare rek boo xoolee combat bi dañoo pare si si si tous les côtés moo waral bu mu ñëwee dafa yomb si moom noonu la dem pare nañ si côté yëpp waaw. Woulimata maa ngi lay bëgg. maa am nga jàmm yow moom xam naa la ci làmb sant yàlla bu baax a baax kontaan. tey daa mel ni kontaan ngeen de. Mm, bu baax dañoo namoon ndam. da namoon ndam. waaw mu indil ñu ko. waaw. moo tax ñu ko ñaanal yàlla. yàlla sàmm ko wàcc jàmm ci yaramam wàcc ko ci mbër yëpp dafa léegi face yëpp jàmm ndam yu yokk incha allah. kilifa gi bëgg naa la. ñu ngi delloo siyaar bu wér. tur bu mag waaw. loo may wax si Coriace. waaw mais kontaan rek nañ joob rek affaire bi moom waaw nañ joob daal man daal nañ joob daal laa wax général moom it dem gis naa ko de muy bës a ka puus a ka dàqe. bëgg ndam rek. <laughs> bëggoon sax da ngeen xiifoon ndam nag. waaw xiifoon nañ ndam parce que Ikrifa ndam ko jik. Ah, ndam kay ñëpp la jik. su rawatina ñun. ñun nga xam ne suñu ndam gars yi duñ ko bind suñu def rek la ñuy bind. li gars yi moom lu ngeen fa am waneel nañ leen kook nit nag dee su ko jox point yu mu marqué wul. man waxuma yow. <laughs> nii man ci gaa yi laa bokk ñiy bind ak wax ci laa bokk. ñooñu man maa ngi wax supporter yi maa <laughs> ngi xuloo moom day xuloo rek. li ma wax du dëgg. daa bind la wax de Forza maa ngi lay bëggee. waaw maa ngi lay fay bu baax am nga jàmm. santa bu baax. mu mel ni xale bi doon bëri demit yéen ñaari dëgg muy sarak nekk ci sa keppaar looy wax si ndam li. waaw ndam bi sant yàlla rek di ñaan yeneen ñëw mu gën a gaaw. waaw incha allah yeneen ñëw mu gën a gaaw. koo ko indil yow. non fi mu nekk wax feeñ la nañ bàyyi noonu rek ah, ñi war a bëreeg moom ñi war a bëreeg moom fi mu toll nii ñoom ñoo xam nañ seen bopp toog di ko xaar waaw waaw jërëjëf. drapeau madame la maw député bu mag ba maam jaara femme bu PDS drapo bii la Serigne Ndiaye gagné démb. ndam la yal na ko jig ay yeneen yeneen topp ci baax la. yàlla na ko yàlla fay xolam gën na fi ay lamb ba tàyyi ñëw seq ñun xaalis bi yëpp bëggul sax ko ko wax quoi gis nga mu may wokk ci suuf mais yàlla na ko yàlla fay xolam Diop ci loolu maa ngi sant yàlla cey Diop daa mel am na ndam dem la wala dama dem ni démb écurie Fass am na ndam lu rëy de waaw démb moom kontaan nañ am na ndam xam nga di ñaanal ndam yu continuer ñu ngi ñaanal xale yi tamit vraiment Cheikh Moussa moom yaru na jox na respect ñu koy ñaan mu gën a yokk góor góorlu waaw te ndam li mu kontaan nañ trop ñun. père Khalifa wala du xalifa yow waay yow yow man lambalog waaw Khalifa la. maintenant du yaay menace Gris Bordeaux léegi wala. waaw waaw man démb xale bi ngeen andi ko ci ma gis ñëpp ëmb ko mu ñëw am ndam loolu nu ngeen ko yëgee en tant kilifa. waaw mais boy bi dafa dafa c'est-à-dire li muy li mu li mu répété entraînement moom la lu mu def entraînement moom la répété fële dafa dafa sérieux ci lu muy def teg lépp ci yoon waa Fass encadré ko mu dem daan su continuer nii moom dina am ndam yu rëy rëy. maa ngi lay bëggee kilifa gi. waaw Babacar maa ngi delloo bëggee waaw. tur bi. Euse. waaw Pape Demba Ba Euse. waaw. Serigne Ndiaye nu ngeen ko gisee. ah xale bu am yar la rek xale bu xam ne dafa respecté nit ñëpp xale ak mag ñëpp lan la respecté moo tax. kombaam euh, yàlla day ànd ak moom ndax ku jox cër ay mag dangay ngay dem sa yoon waaw ah, jox jox cër. kii moom xam naa ko yaakaar naa mooy Guèye Camara la yàgg maar maa ngi lay bëggee. maa ngi lay def. yow moom ci côté technique bi laa lay laaj. kii kii dem am nañu ne dóor mu daanu la am nañu dóor bi dalul yow loo gis. dóor mu daanu laa gis waaw. droite la ko dóor wala gauche. non la ko dóor waaw. waaw crochet droite waaw. waaw yoon waaw ñun nag am nañ si moom yaakaar lool lool lool ñu ngi koy ñaanal fu mu toll parce que suñu doom la yaru na baax na ëpp mën na bëre waaw am na solo. kilifa gi bëggee naa la. bëggee bëggee. Eh, daa mel ni kon supporteru Fass nga tey moo tax nga ñëw toog fi wala. waaw man waa Fass la waa damay ñëw euh, set suñu champion bi laa ñëw xoolaat Serigne Ndiaye waaw. mu mel ni da ngeen am ci moom yaakaar de wala. waaw waaw Fass instant yii nii moom am nañ ci moom yaakaar bu mag. parce que gis nañu moom am na ay qualité yu baax yoo xam ne moom war na mën a yóbbu équipe bi fu sore sore daal waaw sérieux na waaw sérieux na en tamit mën na bëri jaajëf wax ay dirigeant ay mbër ay supporter ay soppe mbër mi nag mu ngi nii ma doon bëre démb félicitation laa lay jóg a wax. Ah, merci. yaa ngi relax actuellement nii firi di reetaan rek. waaw mais mu nuyoo ba rek kay waaw dëgg ah, kay jërëjëf waay <laughs> déedéet <laughs> waaye di bu baax jël sant bi sant suñu ñaar waajur bu baax di gërëm waa Medina ma juddoo yoroo fi màggee fi suma waay juddoo fa yoroo fi màggee fa di gërëm suma waa dëkk bu baax waa Ndiaffate Séeréer Ndiaffate Escale Ndiaffate Bayrut Ndiaffate Socé ak soixante-quinze villages ko wër yëpp waa Buluf bu baax waa Gambie di waa Casamance bu baax xam nga di nuyu waa Bawol waa Lambaye di waa Kayar waa Mboro bu baax di nuyu waa écurie Fass nag su ma nawle mbër yi fi nekk su ma grand yi fi nekk dale su ma grand Gris Bordeaux doon si ma fii di kon ak man forza sept heures moo ma téléphone sept heures da fekk mu ma woon jugal wet général xam nga ay ñoom Gris xam nga di nuyu waa écurie Fass yëpp di ko dalee suñu papa euh, Abbas Ndoye suñu papa Tafa Gueye xam nga suñu entraîneur yi Père Seck Père Gueye Camara Père Ibrahima Mbaye Père Socé xam nga di gërëm sama coach Joseph di gërëm coach Alous bu baax ak Greg Choplin di leen sant bu baax di leen gërëm. ana Alous. Alous mi ngi fi. amaa sonal eh, la sonal. Hmm. bàyyiwul mu mel ni. Hmm, su ma la si combat bi combat bi kañ la taxawoon. combat bi yaa combat sama trois na de waaw. pour na. waaw yomb ñu koy dox. mais ay problème caché dama xaalis pour yoxal ndax ñu mun bëre. wax dëgg yàlla waaw. wàññi sa caché. Hmm, lan moo taxoon nga nangoo wàññi sa kase pour mu bëgg bëri ak Libidor. Ah, parce que maa nekk si yoon malgré moom mu ngi si yoon mais man maa nekk si yoon en plus moom moom moom problème mu combat moom moom courage jël ma dama koy sant bu baax di ko gërëm parce que bu ko neexoon mooy du bëri man parce que moo ëpp ay combat waaw ah, mais boo amee courage jël ma rek c'est parce que alhamdulilah rabbil alamin daal. kon daal li mu def daa mel ni nangu la jël loolu yaa da nga ciy kontaan wala. waaw mais kontaan kontaan mbégte la wax dëgg yàlla man séntu bi laa ko waxoon dama lay sant di la gërëm parce que comment jafewoon na nga am courage jël ma vraiment loolu rek jaroon na wàññi suma kase jox moom jox ko yëpp et puis nga nangu loolu maanaam nga mu jaral la loolu nga def ko et bi nga koy def da nga amoon yàqin ki suñu bëree dama koy daan waaw mais waaw ñun moom yàqin nañ ne su ne muy entraînement loolu sant yàlla bu baax wax dëgg yàlla loolu kese la du leneen ngeen daje signature Pikine ginnaaw raay signature bi tàngoon trop dañuy bi jàppal bàyyil ji lu waraloon tension boobu si combat bi waaw loolu mu ñàkk la ñaari xale la ñaari xale bu ñu tey bi suñu yaay maam jaara faam xam nga député yoo ne bu nekkee assemblée dafay day day tàng jër faalul Jean faalul Paul <laughs> lu mu bëgg wax da koy wax <laughs> moo tax xam nga affaire bi mënul sedd quoi <laughs> ngeen ñëw ci làmb ji keroog bi ngeen ñëwee ci làmb ji ma xo nga gis ko mu gis la bi mu duggee gis nga ko tadu moom gis na la yow loo gis bi nga ko gisee. mu gisee non man man si digg bi laa gisee ah vraiment waaw bu mu taxee daal laa door a xam ne man li bi door a taxaw quoi mais gis nga moom fee mais avant boobu bi ngeen di daj signature yow amoon nga gëm-gëm ne kii dama koy dóor mu daanu. non wax dëgg yàlla moom dóor mu daanu moo kenn ci lam wax dëgg yàlla amoo yéene boobu vraiment sérieusement parler naa yéene daan ko pas ay dóor mu daanu bëggoon naa ñu bëri ma jàpp ko daan ko mais xam rek lam bëri dóor lañu wax da ngay bëri dóor mais li ko xam bu baax di ko wax ne ko boo amatee benn combat yàlla may ndam ma gis démb écurie Fass yëpp a Abass Ndoye Tafa Gueye bu maanaam daal bu ma limee sax damay ju maanaam équipe bi yëpp génn fan yi sax loolu laa gis ngeen xewal lan moo waral équipe bi yëpp def benn maas démb génn nekk sa ginnaaw. waaw loolu sant yàlla bokk ndey ñoo bokk bàyyi xam nga maas gi nga nekk xale mais tey bu ma amee combat tey gars la parce que yéene woon ndam moo tax vraiment loolu ñu may ndam moom ma yéene nag yàlla ko bokk ñëpp wax dëgg yàlla di mas suñu suñu pam doy xam nga ki defet bi mu jógee di ko wane carrément que lamb noonu la combat bi dañ si coono mais lamb noonu wax dëgg yàlla moom laa may victoire wax dëgg yi du ñaar Tapha Gueye de it kay am na defet mu war def waaw mais mu ñëw waaw mais mu ñëw ba léegi saako yi yoon la arrière génn saako yi yow mi yaa wax li mais mu ñëw lamb ak déplacement ànd waaw dañuy waxtaan ci cadre lamb dañ dañ ah, waaw dëgg image yaa ngi fii ci Leewtoo TV ñi gis nañ ko bu dee deux benn yoon la arrière déplacement ci lamb la nga fekk wala fekk ñu ci lamb ah, noonu la ñuy déplacé woo mais mu ñëw rek yow yow lu tax bëree woon noonu démb yow bokkul man xale laa eh, man su tey tafaagay deux fekkoon bokkuñu écrit man tafaagay deux bokkuñu écrit moo la bëri moom dama koy cadré lan mooy cadré cadré mooy dox ci koom cadré ko rek génn ko ay coup mu génn lamb de force xale nga yaa rek si yoon ñii nag maar bu ñëboo continuer mais daal jàpp leen ne ñaari defet ngeen am moom Pape Ndoye daanu na Tafaagay deux daanu na léegi ñu continuer ah démb yow bi ngay ñëw bi pression maanaam noonu ñooñu génnoon en masse topp sa ginnaaw loolu deful si yow pression benn ko yoon ci combat bi. non pression moom mu si am wax dëgg yàlla bi ni mu feesawoon nag nit ñi ñëw toog ñëpp. waaw ah, stade bi fees mis nañ ko. affaire mis nañ ko wax dëgg yàlla moo gën a nganda ji foofu bëri nañ fa ay million yu bëri dafa fees dell wax dëgg yàlla stade fees moom jaaxaluñ quoi. dara desul lu dul bëre summeeku nga waa ji summeeku. pression bi gën a met metti boobu moom gis nga ko moom xam naa ne bi mu sumee ko nga sumee ko jàpp nga ne boobu yow waa yaa ko doole. waaw ñun liggéey nañ loo xamante ne moom te la bàyyi xel ci benn boor lu ma suñu bopp quoi. am na ñuy wax ne euh, maanaam si biir bëre bi da nga jiital pied droite moom mu jiital pied gauche ma gis bu ngeen doxee côté bu nga maanaam bu ñëwee droite nga mel ni ku koy bëgg a foofu mu daggaat léwtoo bi dellu gauche boobu lu xew ak la moo tax arbitre bi mu soufflé yow it nga mel ku may combat bi temps. waaw moom na koy jox cër ma jox ko te ëmb ko cadré ko lu kese la parce que gauche ak droite la boppay joué wax dëgg yàlla dama dem yeeg moom rek dama dama yeeg moom rek dóor ko ah dal na. man de internet yu bëri nañ coup ba dalul nag nee nañ donc est ce nañ du ay affaire ki. affaire ah, nañ coup bi de. Ah, yow kii man pare naa bu yàgg ba mënu pare ay 400000 la indi ñetti camion galaaj. yow foo ko dóor kubi yow ko carrément. kubi est-ce que ko fii yow daal yow mi dóoree yow xam nga ne li nga door dal na. waaw li ma ma dóor dal nga ko dóoree mu wàcc nga fekk ko fa. tëdd si ko lu njëkk ñëw sax sa bopp. sant yàlla rek sant yàlla bu baax waaw parce que loolu moo def noonu tey moo moo na ma dal man parce que kenn xamul quoi di ko masa bu baax. sénégalais yu bëri waxuma sa waa Fass mais ay sénégalais ñooy wax ne kii mooy kii téye écrit nangam sangam loolu yaa ngi koy dégg. waaye Bakar ah, man moom xam nga ne aw amu lu ma lay non xam nga nit ñay wax xam wax nit ñi la la andil. moo tax ma écrit Fass man. da ngay wax wax macha allah. macha allah écrit Fass man ndaw laa fi su may mooy Gris Bordeaux Papa Sow Forza ay Général ay Lagros Gris 2 fi nekk su ma mun ma nekk seen kaw ilaa yomu diine ma maa ngi seen ginnaaw lu ñu mën defal ma def bàyyi ma bàyyi quatrième Tigre de Fass bi kay gars yi nañu yow la. quatrième Tigre de Fass Tigre Fass la yem wax ko vingt mille fois Tigre de Fass Fass la yem. loolu am na solo mais wax nga ko Tigre de Fass Fass la yem roi des arènes nga soxla roi des arènes moom mu nga parcelle tëdd dina law. ah du ma mun jox moom ah mun jox de. ko yor de xamante. alors mënuñ si wax wax dëgg yàlla mënuñ si wax ñun daal ñun daal ñu suñu yoon waaw ñu suñu yoon dara. léegi daan nga ouverture saison nga daan parce que ñu ngi ci mois de décembre léegi mu jeex léegi sa xel ku ci ne. man entraînement. say adversaire laa wax. entraînement ne sax bu entraîné mu koy bëri lu muy jëriñ. bëri moom dina ko def si kàttanu yàlla moom. dañ la dig combat. man dégg nga bëri moom dinaa ko def moom bu ma bëri um, arène laa ci mbabar yi entraînement daal la sama xel def nekk entraînement rek. amoo kenn ko xanaa Forza wala général yi ñoo la ne bu fi laaj mbër. non du question loolu sax la nga fekk da ngaa nga fekk. non entraînement fekk mais ñi nga war a bëreel. waaw ñi ma war a bëreel nekk moom la xëy dama am écurie am staff aw ma leen loolu Moussa jox yooyu bëri bu def ngeen bëree maanaam bëri ji loolu du leneen. Gora Sock de doon na menacé Forza te ne nga rakku Forza nga. Gora Sock benn la moom moo yàgg du tey Gora Sock ay milliards et milliards du jël combat boobu hmm. góor a njool la de. góor a soog ngay wax yow. Babacar wax wax góor a soog Babacar li ñu wax ci programme bi la ñu wax góor a soog Babacar góor a soog ma tere naroo ci benn bopp tamit nag. prix bi na ngeen nekk fii comme yow ne nga respecté maanaam athlètes yi dañu war a respecté lool Papa Sow moom nee génne nañ ko ci prix bi par rapport ak lu mel noonu loolu yëg nga ko. yaa ma wax de. xanaa ne yow fii liggéey yow itam di fi entraîné. ah si man maa ma koy dóor ak si yow. ko si yow nii de dëgg yàlla foo jëlee information yi sax yow. man moom xam nga ne ayu information yi làmb laay wër. loolu maa ngi koy dóor ak nii yaa ngi koy dóor yow. yow itam ñi wax laaj ma wax la n'est-ce pas foo dégg loolu ndax da nga teg sa bët wala gis papier bu wane loolu. ci journaux yi laa ko jàngat ak lu ma gës. loolu loolu événement ce qui mooy lan mooy wax nga ma may la carrément loolu si laa ko yëgee Papa Sow suñu la bokk waxal leneen. na solo loolu leer na léegi looy tàggoo. lu may tàggoo mooy sant sama kii rek sant sama kii rek baaxat <laughs> bu baax parce que mobilisation bi ak suma dëkkandoo yi ma dëkkal métti na trop parce que su ma xasee am deux semaines gars yi duñ nelaw dañuy yëngal ba fajar loolu àq la di leen baal wax bu baax xam nga di waa golf yi. xam nga ma dëkk encore fépp fu séeréer nekk di ma ñaanal waa ndox mi di gën waa ñoo joor waa junwaar bu baax di gën waa munde di gën waa Casamance xam nga di gërëm waa pakaaw di gërëm waa buluf bu baax a baax a baax di gërëm waa jambakuta sori nga di dafal nank rek mu ñëw di gërëm waa Kolda di gërëm waa Ndar bu baax di gërëm waa Bawol xam nga di gërëm yow la boole Bawol sama papa Bawol fu mu dëkk si Bawol sama mbootal ba sa lambaay waaw di gërëm di gërëm waa Mexe di gërëm waa réew maa waa Réfan waa Kawa Kawa Ngoy <laughs> di gërëm waa Gàmm bu baax di waaw di gërëm waa Gàmm bu baax xam nga di gërëm waa Gàmm bu baax di gërëm waa Guddeem waa Sokone Kado xam nga dafa nag baax ñi ñi naaw dafa nang rek <laughs> di gërëm bu baax xam nga di gërëm suma dëkk di baax nag gis naa laa mi ñu si taxawoo waaw di ñaanal suma gaay di ñaanal suma dafa nag ma ñëw di ñaanal suma grand forza yàlla meek combat bu rëy man ko ndam doole suñu tubaab mburu faas yëpp forza san toll rek rek combat la barke yonent yàlla Muhammad wala gisoo loolu kay amu lu may gis yaa wax rek rek rek combat logique mooy combat boobu rek day MMA yëkkati ba la ba ca kaw dóor sa root daan amul sens daanu rëg bu yàggul ah. kii kat appuis jël fii la génne di. waaw dëgg loolu loolu dara. wuy loolu dara. seen écrit bii la génne bu yàgg. alhamdulilah rabbil alamin. da ngeen bëgg mu ñëwaat. dafay jeexal ba ñëwaat. benn la fi amagum de. te dese na ko yeneen. waaw. Hmm. léegi waa Passy yi waa dafa nànk ba pare gu ma combat bi ngi si ñoo bëri Babacar combat bi sama bokk séeréer di si jàpp bu baax xam di gërëm waa Joal di gërëm waa Joal bu baax waa Joal waa Tëngéej ji xam nga di gërëm suma papa euh, Amadou Fall jaanus combat bu baax waa golf yi bu baax xam nga di gërëm waa Tëngéej bu baax tamit combat gars yi jàpp nañu si baax di ñëpp ki ko mën a jàpp nga si combat bi li mu mën rek xamal damaa juum xel moo fatu mais kontaan naa si ñëpp dara ngeen jëf ñun tamit liñ lay wax mooy ah dañuy laaj rek mais jàppal ne daal làmb moom liñ lay wax la ñuy wax say moroom rek xale nga am nañ ci yow yaakaar boo continuer sa liggéey teg ko ci yoon fa gi ñu gaay seen du mbëri mën nga faa yegg mais loolu nag dafa valable pour mbëri nekk Sénégal yëpp làmb moom dafa am lu mu laaj boo ca awee yàlla man laa dimbali mais boo ko wàccee nag loo dajale yow la tu noonu la wala. doon noonu la kon kontaan naa ci. maa ngi gën a bis bu baax itam yàlla yàlla defal jàmm sa combat ak jàmm koy tëgg jàmm dégg naa daan na la fu ne xaar sama benn boy bu ñu wax laay moo ma ko daanal. waaw non laay ko daan yow yaa ko a daan yow mu leer <laughs>